monsieur le maire tàbbi ci euh, waxtaan politique parce que yow fii lañ toogoon nga ne ma yow yaay coordonnateur départemental léegi bu APR ci diwaanu Bambey euh, Bambey googu député yi nga xam ne tegoon nañ ko fa pour yéen bennoo dafa mel ni dañ leen fa gagné euh, lu waral déroute boobu laata ñuy ñëw ci résultat national yi waaw jërëjëf waa effectivement la ma la waxoon ca laa nekk ba léegi parce que tamit ñun mënuñu seetaan président de la république Macky Sall ak li mu def ci réew mi ñuy xool ay nit di ko yàqal fa dëkk muy te dem nañu ba xam ne bu ñu jëlut suñu responsabilité yàqu bi lay gën a màgg parce que mënuñu nekk ay nit nekk ne ñoom ñoo ñoo nekkal président euh, faalewuñu askan wi yëguñu askan wi duñu leen dégg duñu leen gis boole ci quelque fois même les rares occasions yi leen nit ñuy gis ñu ñuy wane yenn arrogance yi yenn suffisance yi kooku baaxul ci président de la république te ñun dañu engagé wu à côté du président par conviction ce n'est ni par amitié encore moins par opportunisme président de la république du suñu xarit dañu gëm gis-gisam ñu ñoo ànd ci ak moom donc bàyyi bàyyi yi nag yu bëri kon du ñu nangu ku koy yàqal Bambey donte xaritam nga boo xaritoo nga dem xaritoo moom en privé mais bu ñu gisee ne da nga koy yàqal Bambey mais dañuy jóg jël responsable da jàpp ni Mor Ngom day yàqal président Macky Sall Bambey absolument la preuve mooy euh, on a été battu parce que pour la population moom la ñu gis ne mooy incarne le pouvoir à Bambey alors que si quelqu'un boo xam ne il le gobe plus donc une nous sanctionne quand bu ñu bëggee teg gestion parti bi ak gestion pouvoir dans le département de bamba yi ci ay dóor ay lobby ay ay ay ay copinage résultat bi la ñuy indi lan la choix bi moo baaxul wala. benn non je vais te dire des constats après nga tirer conclusion euh, bu fekkee ni ki ñu tànn dañ ko dóor commune am te mu nekk fa maire nekkoon député ñu tànn ko ne ko yaay tête de liste départementale pour nga remplir biir commune am mënu ko gagné mu per mooy kan ah tête de liste ba la après boo demee nga xool <laughs> nga xool bi liste Bambey tête de bi <laughs> ah. aywa mboj moo leen fa gañewaat de. yeewi askan wi moo ñu gagné. parce que faut faut pas réduire askan wi à ay Mbodj. y a d'autres jeunes ñu am jom. ñu mhm. bokk ci yeewi askan wi. et je trouve même que c'est plutôt ces jeunes là qui ont fait la différence. moom Pape Diop. Ah, waaw Pape il paraît que il a appuyé Aïda Mbodj dans la commune mais incontestablement la commune de Bambey moom euh, c'est Aïda Mbodj mais dans il y a des jeunes qui émergent yoo xam ne ils ont été très décisifs dans dans la victoire de Yewwi Askan Wi maintenant donc ñun suñu déjà suñu tête de liste mënul sax gagné commune am on l'a battu dans sa commune ensuite nga dem beneen commune ministre bi dëkk fa président conseil départemental dëkk fa une petite commune deux fortes personnalités normalement ils perdent leur bureau de vote ils perdent leur village ils perdent leur commune c'est un problème constat boobu laay def dire les conclusions ça veut dire que certainement ñooñu demuñu ci nit ñi faalewuñu nit ñi fonk ñu nit ñi li war interface bi ñu war a jouer diggante président de la république ak askan wi defuñu ko mais nit ñi aussi même ba nit ñi kenn jëndu leen kenn moomu leen surtout Bawol boo leen yëgee ñu yëg la boo leen faalewut faalewuñu la dara jaralul leen ñooy daw ci ku leen yëgut dara jarul leen ko te ku leen yëgut boo demee élection gis ko c' est évident c' est évident donc euh, peut-être ça apprendra ñu wàññi arrogance bi gën ubbeeku xam ne li ñu li ñu doon nit ñee voté président de la république ba mu def leen loolu ñoom président daf ma wax lu am solo bi ma mujjee giseek moom mu ne ma sama gars yi dama leen wax toujours borom mbubb yu gàtt yi na ngeen leen fonk di wax askan wi parce que li li ngeen li li ngeen nekk nii man maa leen nommé ngeen nekk ko te man fi ma nekk ba di leen nommé ñoom ñoo ma fi teg kon kay askan wi yooyu patron Macky Sall bi ñu seen patron ñoom ba tax ñuy fuuy yëkkati mbaam askan wi patron ñooñu ñooy xeeb ñooy patron président Macky Sall président Macky ne leen dimbali leen ma ngeen joxal ma ñiy cër defuñu ko voilà les résultats et enfin peut-être man je présume. Mhm. que pour l'essentiel du Sénégal partout où nous avons perdu nañu xoolaat bu baax. ña fa toogal président Macky Sall. nan lañu nan lañu comporté woo ak askan wi. est-ce que yëg nañu askan wi est-ce que faale nañu askan wi. dañu si bàyyi seen commune yu ñu gañee ba ñu demee écart bi bu wàññeekuwul ñenn yi dañ leen ah, effectivement effectivement. parce que ah, euh, xam nga euh, ñu ci bëri xam nga la moo leen sauvé sax ci élection locale les les les listes plurielles nga dem xam nga boo demee dans commune fekk fa huit listes mais le maire sortant il passe parce que mën na am vingt cinq pour cent vingt huit pour cent mhm. soixante dix pour cent yi ci des bu ko huit bu ko sept li Cissé kii day am quinze pour cent kii am seize pour cent kii am huit pour cent. kii am voilà. tu t'en vingt cinq vingt six trente pour cent maximum tu deviens maire. mais bi ñu demee élection bi. Hmm. nga xam ne pratiquement c'était Yewwi Wallu face à Benno donc finalement c'est c'est comme si c'est deux listes donc yow 30 pour cent yi nga amoon si même si tu les conserves tu ne peux pas faire face à 70 pour cent yéen ne yéen nekkoon donc euh, voilà mais en fin de compte. Mhm. man je trouve que un bon ministre juddoo ci dëkk bi yaru ci dëkk bi màggee ci dëkk bi amay moyen wara a mën a amal nit ñi njariñ boo leen amaloon njariñ mhm. yenn yi du la dal ci